mbokk yi xarit sen télévision mbour tv point net contentement jàkkaarloog yeen tey ci édition spéciale bi nga xamante dañ ko jaglél uniquement euh, li xewoon fi ci stade euh, Demba Diop li xewoon fi ci douane Mbour lu daloon domi Mbour ku wax lool nak dina fàttaliku li nga xamné ne moo fi jotoon a xew muy tiis bu métti ba juróom-ñetti domi Mbour ñakkon ci seen bakkan mu nekkoon le 15 juillet 2017 tey nak ñu def édition bu yaatu indi domi Mbour indi ci ño xamante euh, féké defoon neen ko indi si tamit eh, koo xamante ni xelam màcc na ci wàllum tàggat yaram eh, mu ñëw nag tey ñu nar a jàkkaarloog ñoom ñaan ñëpp waxtaanee mbir mi waaye ci di ngeen am ay réaction yi nga xamante ni ay doomi mbuur la ñu defoon benn micro trottoir si diwaanu coose fi nga xamante fa la supporter yi déparé won jugee ko mbuur dem stade Demba Diop ngir dem supporter ji waaye ñëw ñëwee li nga xamante ni moom mooy naqar ñoom ñu jëlee ko philosophie jëlee ko gëm yàlla ba tey ji mbuur ñu ñëm ñëpp nekk benn ah gëm gëm ne li nga xamante ni moom fi jotoon xew incident la jàppee ko ne yàlla moo dogal sante ko yalla waaye plateau bi weetuma ci gis ngeen ñi nga xamanteni ñom ñaa ñom la bokal plateau bi euh, muy euh, Paul Wade ak ki nga xamanteni mom moy mooy euh, Sall nekk journaliste sportif yi ci douane Mbour dama leen di bay nak ñom ku si nekk mu présenter wu ñu dal di commencer li nga xamanteni mom moy édition spéciale Paul ma ngi lay nuy ma ngi lay fay. Mhm. di nuyu askan mbour yépp mhm. sargal askanu Mbuur yëpp. Mhm. di jéggalu di baalu àq ñëpp. Mhm. Euh, fi mu ne nekk nii dama xaw a tawat nii sa boo ko mhm. xoolee. dëgg la euh, parce que voilà laa la euh, sama existence amatul importance. damay def li ñëpp bëgg rek. comme ça jaamu yàlla la. comme ni ñu naan xubbul watani minal iman. nga bëgg sa dëkk bëgg sa réew. ci jaamu yàlla la bokk. loolu rek mooy sa motivation ba nga xamante ni bu ma doon raami. bu ngeen ma invité dinaa ñëw ma rafetlu invitation vraiment. di di di di daloo jàmm ci ci ci ci. ci plateau vraiment ci plateau bi. jërëjëf jërëjëf ngi lay gërëm bu baax parce que moom tamit bi nga xamante ni woo neen ko ci invitation ne lépp loo xam dafa jëm ci wàllu mbuur rek moom engagé wu na ci te tamit loolu mooy wane patriotisme bëgg sa réew bëgg sa gox waaye maa ngi ceeg ki nga xam ne mooy Moustapha Sall Moustapha nekk journaliste sportif nekk ci diwaanu mbuur fii nii Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Djibi. Mm-hmm. di nuyu euh, invité Paul. Mm-hmm. di ko nuyu di nuyu euh, mhm. euh, ñu ñëw nag ci bés bi nga xamante ni moom moo xewoon fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2017 Mbour bàyyeekoo fii dem stade Demba Diop ngir supporter ngir football ak équipe bi nga xam ne mooy US Ouakam ginnaaw loolu nag ñu nemmeeku ne euh, mbir mi ba mu demee dafa jur jéye bu métti ba juróom-ñetti doomu aadama yu nekk fii ci doonu Mbour ñàkk si seen bakkan image yooyu ba des. ba tey muy dess ci kanamu mbuuruwaay yi ba faté wuñu ko dañuy daldi nak euh, def li nga xamanteni mom moy euh, premier tour de table hein, euh dugg nak ci waxtan bi euh ma daldi jox kàddu gi ki nga xamanteni mom moy Paul gis né né 15 juillet légui bokku na ci calendrier historique mour ngeen ci le ko lo xamanteni jotoon na len dal bés boobu lan nga jot def sa mémoire li nga xamné mom mo amone ci si bés bo euh, xolé affaire yi. ba léegi man mënatuma mënu mënaguma ci résoudre ma nekk normal parce que boo ko xoolee temps ci internet yi ci télé yi ci rajo yi on ne parle que du 15. Mm-hmm. fekk man fi may affecté day metti ci man de telle sort que. Mm-hmm. du ma xool. Mm-hmm. parce que j'ai vécu un drame boo xamante ni euh, ci sama vie.

si may koo xam ne ko nit ku humble nii rek li ma gis mu am ci fierté bay oo yaayam si je me si je me. avant avant avant accident bi. parce mhm. mu ko gisee mu ni ko mu ni ko yaay gis naa bël. Mhm. Euh, kontaan naa leen lañu jox t-shirt. Mhm. Euh, damay dem université mais su ma fa jógee rek. après bu ñu gañee coupe bi allah ba may ànd ak côté la ñibbisi. moo doon dernier jour am. incha loolu mooy tàggatoo ak yaayam. image boobu daf may marqué. boo ko xoolee aussi ci drame bi xale yu tuuti.

jógoon nañ presque deux semaines à un mois di préparer final bi peinture stade yi yooyu je l'ai fait avant may dem rek man dama mon sous tension boo xam mm-hmm. j'étais un peu malade mais bobu li la bu mu jógee rek man suma ma jógee après amatuma ci euh luma ci kuy lolu dal vraiment affecté woon na ba mm-hmm. le 15 bi buy ñëw dama koy ragal damay mel ni ku du ma ragal damay mel ni ku nekkaat damay vivre ak affaire yi motax tax fan yëpp dama doon daw di laqatu motax tax mm-hmm. demu gisi bi sox amoon na lu mu wàññi mais bu ñëwaatee fi ñu koy gëna préparer bu gëna a rek la sama xol bi day gëna day gëna metti dal métti daal mu gën a métti mm. boo xoolee wëli koo xam ne mm-hmm. doon yëg sa kaw da ngeen loolu waxtaan ni jaayam laa doon àndal ñoo ànd stade ñoo defandoo lépp euh, yëguma lu dul rek ñoom ñëpp wàcc nañ liggéey laa te man boobu maa salle opération ma génnee bi ma bi ma yeewoo nga xam ne nelaw naa pratiquement vingt quatre heures ma yeewoo laa gis ñu ne ma yaa huit morts à Mbour laa ah. je veux plus vivre même ci yi bëggatuma woon sax a dund sama tànk bi yëgatuma ko woon après gisuma lu ñu opéré la hmm. wala te un mois nga ne damay ñibbi Mbour parce que boobu yi woon naa ne Mbour mu ngi am ay yaa ngi jóg hmm. dagg nañ sama tànk yi loolu la ñuy wax ci journaux yi tout ça hmm. man ni su ma tëddee fii rek day metti naa forcé dem bi ma demee décharge lañ ma defar pour wax ni moom ah yow yaa génn sa bopp. Mm. devant Mbaye Diouf Dia moo jënd béykat ma yoroon sax. Mm. ah ñoom Saliou tuuti ma man leen man maa génn dem Mbour waa Mbour seen xel daal. dëgg la kon dund naa ak douleur yoo xamante à l'heure où je vous parle.

bi nga yéegee jour boobu lan nga ci jotoon comme ay sentiments. Euh, loolu mi ngi ma fekk Dakar. Mhm. Euh, ma dama ko vivre peut-être nekk moon stade mais man maa nekkoon à l'antenne. Mhm. match bi dañ ko doon reporté en direct. Sud FM dëgg la donc Adama Diop moo nekkoon stade ak euh, El Hadj

mu mën a jaaxal ma parce que ñu ngi doon wax ne mi ngi commencé yëngu ci stade bi et cetera mm-hmm. Mm-hmm. mu jaaxal ma bi mu daggee ma jël sama téléphone ma woo Papa muy sone jëlul ma woo Adama muy sone jëlul technicien bi Assane Thioune moom mu yoroon technique bi euh, laa mujjee jot bi ma ko jotee mu ne ma il paraît que y a des morts ah bon waaw mu ne ma mm-hmm. Moustapha il paraît que y a des morts mu ne ah mu ne ma wool Adama ma insisté woo Adama jot ko Adama Diop moom moo nekkoon moo dëkkoon fii Mbour man période boobu ma fekk Dakar. donc comme ci Descastor bi laa nekkoon. Mm-hmm. maa ngi doon vivre match bi en direct. Mm-hmm. donc ci télé bi ma doon seetaan en même temps. Mm-hmm. Euh, ñu doon ñu doon euh, nu mu tuddati def affaire bi en direct kon. Euh, bi laa woo Adama bi ma ko woowee ñu ne ma. mu ne ma effectivement Montréal bi Adama sax dafa mujj craqué. Mhm. ak le euh, reportage bi. mu nekkoon vraiment lu metti lu dal euh, stade de Mbour au delà de stade du stade de Mbour dafa dal footballu Sénégal. Mhm. donc mu nekkoon man mi jour bi nga xamante ne situation bi am na. ma jël antenne bi fekk élection moo amoon. Mhm. ñu waroon a def euh, tour région yi doyen Baba Diop moo ko doon def. ma dagg Baba pour mu dugal ma. man bi ma jëlee micro bi bi ma waxee waa rajo bi yëpp dañoo daw si ñëw. parce que man ci sama wàll boobu c'était très difficile. pour ma génne woon ne Stade Demba Diop am na drame bu xamante ni am na juróom doomu aadama. Mhm. yu ci ñàkk seen. dala dépassé woon. à un moment bi may dugg ci antenne bi mais bi ma jëlee micro bay wax sama voix dafa tremblé. donc bi sama sama directeur yëpp dañu daw si. Euh, jàkkaarloo man ci ci tey vitrine bi. Mhm. par la suite dañ ci def ben plateau bu nga xamanteni mhm. ñun ñëpp ñi ci def ci plateau bo xam ni duré na pratiquement 20h euh, mhm. ba minuit. ñu nekk ci di jël autorité ak seen réaction yi dañ ko vivre hein, comme euh, tout journaliste comme ni ma la ko waxee mu nekk nak lu nga xamanteni ni maintenant plus jamais ça.

bi mu tas ñu reveniraat ko amna na ñoo nga peut-être dégg nañ feneen yi ñun am nañu ci am liberté provisoire amna na ñoo xam ne ba légui seen dossier mhm. réglé gul mhm. problème stade de Mbour ak US Ouakam ñëw ak problème yi nga xamante yépp ñëwaat na ci ci biir euh, football bi tay ji ñukoy fatlikou affaire bi mel ne lu yees vraiment fatlikou lu nakari mhm néexul mais nekk na lu nga xamante ni footballu Sénégal war nañoo profité ci situation bi nga xamante ni moo le 15 juillet 2017 football au Sénégal. Mhm. ci la waroon a profité problème yu bari ñu réglé ko. Mhm. situé woon responsabilité yi. Mhm. responsabilité mooy lan. tout à fait euh, peut-être euh, sanctionner nañ sur le plan sportif. mais avant Wakam, ak Stade de Mbour du football si amoon na Ligue Pro bi nga xamante ni organisé woon final bi. tout à fait Ligue Pro.

contribuer parce que dañ ko dafa mel dañ ko xawoon a ñàkkal fayda euh, maanaam ñu waroon a teew autorité yi waroon a teew xaaj bi teewuñu. xam nga tension yi c'était prévisible hein. am na ñu ko wax avant match bi parce que ku ki connaît le stade de Mbour. Mm-hmm. xam ne dañu am ay supporters yoo xam ne dañu accroché wu ci seen équipe. Mm-hmm. Ah, équipe bi di stade de Mbour équipe bi di Ouakam. Mm-hmm. équipe bi di Ñaari Kale équipe bi di Njàmbur de Louga gi ma dëkk. dafa nekk ay équipe yu nga xamante ne le public dañu exigeant. dañuy dañuy bëgg lu ñuy def dañu bëgg seen li nga xamante maanaam dañu bëgg seen équipe. Mhm. équipe bi day football ñu nekk ci di ko coacher. Mhm. di yuuxu ci kaw. Mhm. di kaas donc toujours ñoom bu ñuy euh, euh, supporter seen équipe day nekk lu nga xamante ni. lu am euh, dañ ci taxaw maanaam dañu dañu exigeant noonu lañ leen di tuddee. ay supporters yu exigeant la. ñaari supporters yi gën a exigeant wala ñetti yi na ci stade de ak. UGPS euh, Wakaam. Mhm. dèjà Wakaam dañ doon am histoire lu bare bare foofu Demba Diop. Mhm. am na ay histoire yoo xam ne fekke nañ ko. stade de Mbour waxee nopp dañoo nekk équipe bu nga xam ne dañoo am supporter man maa ngi fi. Mhm. souvent am na ñoo xam ne dañoo bokk stade de Mbour dama koy waxtaan a ñoom. dama ne leen stade de Mbour équipe la bu nga xamante ni seen i dañoo tàng. souvent dañu tàng temps yële bi bii ma fi ñëwee rek de yagul trop guma fi 5 mois mais amna ay histoire yo xamanteni amna fi ci digënté ay gémi ay nangam ñu ne doon sànnante xeer mhm. dafa nekk ay yu nga xamante ay supporters yu tàng lan ci équipe yi tang supporters et Stade Mbour ci la bok nekkon na match bu nga xamanteni ñun ñu doon suivre li nga xamanteni ne moy mooy mhm. eh, sport xamoon na ne marché bi dana am ay jafé jafé du yomb du yomb mhm. dana am ay jafé jafé parce que supporters dañu tang mais ñu yaakaar na nak dana yegg fi xamoon na dana am problème te am na ñu doon sétane ci stade bi xamoon nañ ne tôt ou tard dana dégénérer parce que ci reportage yi ñi ko doon def boo ko déggee ñu ngi doon artu mi ngi yëngu sànnañ tey nangam ak mm-hmm. loolu xëy na lu am la lu réel la ci supporter ñaari équipe bi mais tamit leneen beneen réalité bi mooy. Mm-hmm. Euh, ci walu export ful la ji nga xamanteni war nañ ko ko jox ci walu sécurité mhm. au delà du drame de mbour bi benen drame man nama ah. parce que ba légui réglé wuñu problème interne yi wara problème bi nga wax mhm. xamne ci walu sécurité day am ci walu sport mhm. fi ci rew bu ñëk da ngay dem ci man

nga problème problème reste entier. Mhm. situation bobu man na fi arrivé équipe wala équipe football mhm. parce que Bo xolé bo xolé li nga sécurité souvent day soxé ci football mhm. rawatina match bobu nga dafa campagne électorale pour wax li ngay wax dafa tellement réalité jour bobu maître Augustin Senghor démb ko jël en direct à l'antenne il n'était pas à Dakar. voilà la première loolu mooy muy campagne. Mhm. nekk Diourbel su ma juumul. Mhm. jëlee ji ko jël il n'était en mesure. Mhm. de nous dire qu'est-ce nga xamante ni problème. xam nga xam nga xam nga loolu dogguma la sax mais loolu faute bu grave la ki nga xam ne moom leen dénk football ci réew mi. nga nga am final bo xamante ni une grande finale bo xam day am tension am ki yow nekkoo ci ci ci ci. ci nekkul ci ci ci ah? finale bi. waaw boobu la. Hmm. benen bi ñu jël ko il se permet de de de de parler ci ci situation yo xam maîtriser wu ko ko waxee en direct bi mu waxee ba paré dama leen di euh maître Augustin c'est bon respecté wu Sénégalais hmm. et il ne se respecte pas parce que mënoo nek président entité bu doy ne fédération. Hmm. ligue pro di organiser match match bi am 8 morts ñu wola vraiment mënoo leeral même le ministre ah, en direct la dugg ci émission bobu bi mu mm. limu def moy APT. l'éternel recommencement Sénégal non lañuy ñuy ci wàllu sport non lañuy doxalé té te moy mooy ci fan yëpp. ci wàllu mm-hmm. sport dañuy sonn rek. Mm-hmm. ci sport liggéeyul dañuy taf yëngal taf yëngal nak lépp lu nga xamné da ci dugg situation bi lay mujjee ax ay coupe du monde li ñuy dem ak équipe bi baax nag et cetera problème bu nga xamante ni mi ngi fii. Mm. autorités yi nga xamné ne ñoo yore football bi duñu wax football. Mm. duñu wax sport.

tu vois, def assistance waron mais baye ba drame bi am ku di médecin après la mort donc je pense que sport Sénégal war mais Paul yow wax ci dimension euh, euh, li nga sentiment euh, on se comprend parce que mon timit dafa dafa bokkon ci ñi nga xamanteni ni ñoo nous, ci ñu gis yi ñu am suivi toppatoo leen ba nga xam seen gaañu gaañu mu ngi wàññeeku est-ce que loolu noonu mu ngi am ba tey. Euh, foofu foofu foofu moom mooy gën a métti aussi en mm-hmm. Mm-hmm. parce que après dañ jël yëpp rek reposé ko ci ginnaaw président bi. Mm-hmm. mu mel tey bu doon dem accidenté. ñun accident lañ chauffeur moom mooy responsable. bien vrai c'est la première personne morale. Euh, mais su soog yi amee. mënoo jël ñëpp en charge. Mhm. c'est aussi mënul nekk. dëgg la euh, dafa am ñoo mën a jël rek jàppaleen ñi gën a métti la peut-être mhm. ñi des xam nga mbir yi tout le temps day rax leneen quoi. Mhm. xam dañ ciy bëgg a rax. Euh, ci politique ci politique moo moo moo waroon a ah. ba buntu këram parfois mu wóor tey xam nga seen la boobu ñun ñëpp la jàpp. ñun ñëpp la affecté pendant des mois ba tey may ak yow nii. dëgg la euh, léegi da ñëw gis soit gisoo wala nekkul sax ci moment yoo xam ne war na nekk sax moment yi mu war a mën nga génn rek après xam nga fii. Mm-hmm. réseaux sociaux yi bëri nañu. dëgg la euh, télé yi bëri nañu rajo yi mm-hmm. bëri nañu. après mm-hmm. ngay jéggee kenn def déclaration boo xam ne yow sax. la newoon ci yow sax da koy génnewaat. am mhm. da ngay am xol bu metti ci li nga xamante ni yaakaar ne yow yaa ko mën te sax mënoo ko. Mhm. Euh, loolu yëpp dafay nekkaat yoo xamante ni. te suñu mhm. kaw lay dalaat buur lay dal. dëgg la euh, foofu tamit dañuy le temps ñu ngi ci problème ñun ñoo ñun ñoo gaañule ñun ñooy reyantewaat suñu biir. dëgg laa daf may metti parce que ñun ku ne wala nga am mat gu day ni kenn bañ a jël li utiliser ko pour di ci pour di ci jéem a sànq sa morom wala mu ci jéem a yooyu jaru ko mhm. mbuur dëkk drame bi ñun la del ku ne da war a jël comme yow yaa dee ku ne da war a jël comme yow jii mhm. lii dafa dal kaw nattu la mhm. euh, parce que deux semaines de préparation ñu koy def boo gisee mën naa la sama sànq pas parfois deux semaines de préparation à un mois ñëpp jóg ñi benn ci mbedd koo gis ak mu ne nañu yàlla may ndam ndam foofu laa wax di sax dañoo ba looyoo nit di xëcc ci àdduna jàngat la rek comme li nga léegi. dëgg la on apprend mhm. lu ñuy ñaan sax ñaan jiglaay fekk ñu ci. lu ñuy ñaan ñu ñu mën a xam. Mhm. yan matuwaay lañ ci demee expérience la. c'est-à-dire nekk loo dafa dal ci suñu kaw metti. parce que y a mhm. des y a des morts des kon boog dañ ciy jëlaat jàngat. Euh, moo tax xol yi mënagul apaiser ci léegi ba pare beneen bi am mooy li sama waa wax léegi rek mooy après un an. jéem nañoo def le tout effacé ko ci xelu mburuwaay yi nag ci moins de six mois championnat bi démarré waat mbuur fàtt ko ba ñu jugaat sax jugaat ndënd yeeg yooyu yëpp toppaat équipe bi pour am objectif gëmloo waat leen c' possible c' est toujours possible di nga alaase sax championnat bi pourquoi pas ba waa mbuur xaw fàtt yooyu mais d'un coup rek ñu ñëwaat ne war a yi wàccewaat nañ ko indiwaat nañ ko ñëwaat na Ligue 1 dañoo jëlaat lépp mbuur yëpp commencé waat jëlaat delluwaat ci président bi delluwaat ci dirigeant yi c'est des incapables xamuñu dara dem ñu novice lañ kiiwuñu. ci ci foofu sax euh, ni amuñu ci ni. Mm. li ñu waroon def yëpp def ko. fu demee ba procureur di arrêté fu ñu demee ba ñu tey jii ñu ñu suspendre fu ñu demee ba yooyu yëpp ñu def ko saaba ni yëpp amoon na un dossier. waaw sur la table. comment war a retourner waat en ñu war a wax ni wéy.

mooy am na ay responsable yoo xamante ñoo yor si un drame bu day ni bii am final bu day ni boobu engouement bi te ñoom ñoo def préparation bi éveiller population yëpp ñoom seen bopp teg coupe de la ligue jox ci ay kii yooyu yëpp ba mm. ñu wóor ne ji population bi nar a ñëw dañ ko mais xanaa en moins de 30 minutes sax boo gisee kaar ni ñuy ñëwee ak déclaration yi wakaam def yi mbuur def yow war nga mën a xam ne tey jii kat fii fii du yomb fii du yomb dëgg ba ñu ñëw ba gis avant coup de sifflet mm. waroon nañoo xam xanaa avant bu ñu demee ba mi-temps war ngaa mën a calculer ay xel lañ am man sama dikk ni yenn dirigeant lañ am ci yoo xam ne ñoom ñoo yore footballu Sénégal parce que drame bu day noonu waroon nañ ko mën a éviter même bu ne serait-ce sax bu ñu jékki-jékki sax ñu ne tasoon nañ marche bi si si c'est inadmissible. wala ñu arrêté ko sax ñu mën a xam ne ah. préparation day avant ñu mën ko yóbbu feneen sax moo hmm. ëppoon mais dem nañ ba drame bi am tu les vois libres de partir libre de s'en aller def lu leen neex lu ñu bëgg def yi ah. fii ah. ñëw trace benn quartier bu ndaw wakaam ñëw jël dossier boo xam ne Sénégal moo ko moom national bi ñoo moom ñu jël ko yóbbu ko taas un quartier prendre otage tay ji prendre un peu jamais la toroxal fédération toroxal ligue professionnelle. ba ca ministère justice sax parce que fi nga nekk solo dafa que euh, fédération sétane ñi nga xamanteni ñom yor yi football yi euh, nu mu dafa que ni du yoon. xam nga dara intéressé stade ce qui se passe le côté sportif. Mhm. intéressé.

après ñoom ñoo ñëwoon wàcc ko national amande ko 10 millions léegi yooyu ñu defoon yooyu dañoo xëy rek deux coups ñu teg ko à côté kon kay nañ si toute la ligne. tout à fait quand de huit morts. Mm-hmm. y a un sa yaa a des coupables y a des responsables. pourquoi ñoom mënuñoo assumer seen responsable. ba Ndofène Fall bokk ci ñoom démissionné. pourquoi ñoom laar de démission boobu loolu nga xam ne tey tey jii. Mhm. am kañ la am am am nu mu tudd am am njàmbaar la gëm sa réew la am patriotisme la am mhm. civisme la. Mhm. nga xam ne tey jii échec naa naa bàyyi quand on de mort nit ku dee du caaxaan. du yoon surtout huit personnes kon tey suñu war bu ñu gañoon mondial est ce que ñii dinañ am courage kontaan sax. ci coupe boobu noonu. nga xam ne championnat bi am ren ji bi gën a bon ci àdduna boo xam ne kenn mënu ko expliquer. yokk équipe wàññi équipe ba tey ji ñu ngi am problème ñoo war a wàcc tout ça c' est des yoo xamante ni Sénégal dañ ci war a am ñàngat li nga wax am importance j'étais en Russie. mais parfois damay toog ma ne mbaa nit ñi suñu àq moo leen dal xoolal lii xew yéen a mën a ko mais jàmbaar tey ji ko koy rek. dëgg la fan la mujj.

est-ce que loolu amul lu muy joué si ci faiblesse waaw mhm. moom du vivre nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee waaw taas vivre ko mhm. ay tubaab la ñoo xam ne ñu nga tëdd seen kër di naan seen yu sedd te te àttewuñ ko sax Sénégal dégg naa waaw mhm. donc mais xam nga dafa am lu nga xamante ni li ñu naan euh, li Blaise Pascal doon wax naan erreur euh, au-delà des Pyrénées. Mm-hmm. voilà mm-hmm. donc mu ne tey lii dëgg fii mën naa nekk aw fen. Mm-hmm. ci ci beneen boor bi. boo ñëwee ci table ji ci kanam li mën naa nekk dëgg mu nekk fen fii. loolu mooy lan mooy nit ñi de mën nañu bañ a intéressé taas. mais ñun dañu nekkoon suñu réew mu am juróom-ñetti nit yu nga xamante ne nii ci histoire footballu Sénégal boo ko yaatalee sax xëy nit ñu mës

mais sur le plan sportif amu ci pas de responsabilité. parce que pas la sécurité. de sécurité, stade. la stade. Mhm. effectivement C'est la fédération qui devait faire ligue professionnelle. Mhm. ci de responsabilité 45 mhm. ligue professionnelle fédération mooy seen kilifa am de responsabilité 45 Wakam, responsabilité de responsabilité 10 donc 90 autorité yi la ñi nga football ñoom ñoo ci am part de responsabilité loolu ça dit long loolu tey tu boo ko defoon tubaab day bàyyi day bàyyi sport bi. Mhm. dem defi leen parce que xam na ne echec na. mais loolu bi mu amee dañuy leen fàtte ne ñi nga xam ne ñoo yore football bi maanaam bor la bu ñu yoree taas. Mhm. bu leen fàtte ne Sénégal dafa football ak Afrique du Sud. Mhm. match ba am jafe-jafe.

kilifteef bi ma amee mooy taas jël na décision parce que taas euh, euh, sama waa ji mi ngi koy wax léegi taas laaj na stade de Mbour. laaj na autorité yi nga xam ne ñoo laaj na fédération def na enquête am waaw. bi taas bi bi bi nga xamante ne réseau yóbbu na dossier bi taas interrogé na équipe bi nga xamante euh, ne mooy équipe fédéral bi Ligue Pro ne leen ndax après enquête bu ñu delloosee équipe bi nga xamante ne mooy EZOACAM. da ngeen ko mën a intégré waat ci championnat bi. tas jël ay devant de. laaj na laaj na ñu waaw waaw uh-huh. ñu ne ko waaw. parce que tas bi mu indi mu indil leen euh, ne leen mën nañ ko man léegi dañ koy baal wàccee euh, ne dañ koy intégré automatiquement fédéraux yi boobu gisuñu lu dul def li tas sax parce que booba tas yóbbu na leen qualification coupe du monde mooy match bi nga xamante ni revenir na ko Afrique du Sud. tout à fait donc li leen intéressé woon ci instant boobu. Mm. mooy bëgg ñu woon benn yoon. football am ak am ak désaccord ak taas wala maanaam football suñu réew sooxe. Uh-huh. ci problème mu. Euh, dañoo war a dem coupe du monde li ñu bëggoon rek mooy baaxle lépp. jërëjëf ba dem coupe mhm. bi. Mhm. am na yeneen dossiers yu nga xamante ni au delà euh, de cette euh, ñu ngi fi ci football ci sport bi mu ngi fi taxaw. Mhm. xëy na du monde bii ñu doon ñu jublu woon moo tax. mënuñu woon a def lenn lenn lenn nga xamante ni da doon entaché dem coupe du monde bi te coupe du monde bi sax organisation beeg et cetera dem beeg ni ñu ko waajalee safara ku tas la woon. Mm. ñaata nit ñoo jóge fii dem. Euh, Russie sama waa ji ci la bokkoon. dëgg la yéen condition lañ demee. dëgg la yéen ñëw leen yóbbu. dëgg bi. Mm. drame bi dafa ni mooy incompétence bi mm. ko. man sama émission dama ko doon wax. tout à ma koy wax. tout à fait donc ci wàllu sport ñuy yëngu sport la ko ci diw dama contre diw nangam i nangam. dëgg la politique ko war a baaxee ah. nii ñuy jugé nañ coupe coupe du monde am nañ problème buñ démé coupe d'afrique même situation bi lañuy vivre ki mi ngi doon wax ak dañu dal mais du ak dañu liggéeyul ci lu ci sport <laughs> jërëjëf Moustapha li ngay wax am solo te timit ay xam xam la mu nekk timit lu am ci réew mi ci walu sport parce que sénégal ñom bala ñoo saytu dara rek dañuy bayyi ba dara am ñu doora commencer juk wa mais c'est après la war commencer juk di wax ci biir euh, émission bi mbokk yi dañ leen di euh, fatali ne yeen seen édition spéciale bi nga xam dañ koy def ci drame bi nga xam mo am euh, stade Demba Diop US eh, Wakam doon ci football ak eh, stade de Mbour mu amoon ci juróom-ñetti eh, doomu aadama yu nekk ci diwaanu Mbour génn ci àdduna ak plus de ñeenti téeméeri nit yoo xam dañ cee gaañu ñu nag ànd ak yéen seetaan li nga xam ne micro trottoir bi nga xam defal neen leen ko ci ñii di supporter stade de Mbour yi ginnaaw at naka leen gisee li nga xam ne moom moo xewoon foofu noonu ñu dellusiwaat léegi ci plateau bi. bésu tiis bésu naqar. bés boo xam ne dañ koy fàttaliku ak beaucoup de tristesse ku mu doon loo xam ne lu metti la euh, mu metti mbuur yëpp tey ñu toog bay am un ñu di ko war ko fàttaliku di ci euh, am lu ñuy fàttaliku di am une pensée pieuse pour sunu frère ak sœur yi nga xam ne ñoo fi jóge tey. sport pour man dafa war a boole war a xamale mais warta tàggale su ñu demee nag ba sport di rey. ñu bàyyi sport moo gën ñun li ñu gis mooy ndax ñun bi ñuy dem keroog jàmm ak salaam la ñu yóbbaale ndax boo see xoolee suñu président comité supporter wax na ko président comité supporter Wakam bi est-ce que su ma la gañee di nga ma félicité mu ne ko waaw ñun donc kàddu googu ndax nit amul lu dul kàddoom kàddu googu ñëw waroon nañ koo respecté jox kàddu googu cër ba nga xamante ne nii dara warul ba fa waru moo na mën a am. li xew keroog la 15 boobu noonu képp ku génn ko na rek. du sa jàmbaar ndimbali suñu borom la ndax mënoon naa gën a metti noonu waaye lépp dañ koy jël rek delloo ko yàlla sunu borom xam ni lu am rek moom moo ko def waaye loolu moom waxuma mbuur mais Sénégal mënuñu ko fàtte ndax dafa doon loo xamante ni ci footballu Sénégal ci histoire futbal nit dootu ko fàtte. ñaanal leen yàlla mi nga xamante ni moo leen fi jëlee yàlla la yërëm leen xaara leen àjjana ñoom ñëpp. te di wax tamit xam nga li nga xamante ni moo ci des. que justice soit faite quoi sincèrement parler parce que tamit lool rek moo fi des quoi buñu waxanté deug loolu kessé mo si dess les responsables responsabilité il faut ñu situer ko quoi pour nga xamante ni là au moins ku nek xamné responsabilité bi ni nga si defoon quoi après xam nga la vie continue. ma mbokk yi gis ngeen que li nga xamné ne micro trottoir bobu ñu défé ko fi nga xamné fa le supporters yi déparé won damay jox nag ki nga xamné moy mooy mu tàggoo lan ngay tàggatoo

Mhm. ba tey ji damay ñaan yàlla euh, mbuur yàlla saxal fi jàmm man ci lépp laa jàmm man. amiin parce que man la loolu laa gëm man. jërëjëf jàmm daal laay woote. Mhm. jàmm laay laay oo ñëpp ba suba daal bu ñuy dem ci kii na ñëpp dox ak doxu ñaxtu doxu du doxu ñaxtu mais doxu ñaan la mm-hmm. journée de prière la mm-hmm. pour nos défunts frères et mm-hmm. journée bu bu bu ñëpp war a mën a taxaw xoolante suñu biir bët la xam lan moo war a doxal ëllëg dëkk bii ñu war cee mën a profité da nga wax lu doy waar mooy fii war na mën a jëriñ mbuur ci lu ne pour mbuur war fee mën a jógee rek dekole il faut ñu gëm ko suñu bopp euh, te gëw ma ne tamit nii Euh, ci la 15 bi rek la waa doomu Mbuur yëpp war a mën a dajaloo rek mu nekk benn bloc wala benn ki man góob ko depuis ci ràmm daa wax naa ko. Mhm. Euh, daje boobu ak ànd boobu dafa war a nekk lu sax. Mhm. pour bu bëggee génn Mbuur ci situation bi ñu nekk nii muy la maire muy autorité yeeg muy ñëpp na ñëpp ñëw. ñëpp gis seen bopp ñëpp sentir ne tey ji man maa am ñu deene man maa am ñu gaañu ne après la vie continue ñu boole ci yeneen télé bi daal mhm. euh, Mbour TV voilà euh, sama télé la <laughs> uh-huh. euh, na ko Mbour waa yëpp jàpp comme seen mhm. télé comme mhm. seen matériel comme seen œuvre su ko defee mu gën a avancé jërëjëf bu leen dellu ginnaaw comme li sëñ Fallou doon wax rek damal ca kanam rek te bañ a geesu ci ginnaaw bul déglu la ca ginnaaw yow fexeel nekk ca kanam rek on ci kanam uh-huh. ñoom la kor <laughs> merci bi nga xamante ni sa patriotisme bëgg sa réew bëgg Mbour bëgg stade de waaye tamit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax euh, Moustapha euh, lan ngay tàggoo waaw xanaa gërëm la rek ci invitation bi ah. <laughs> waaw Moustapha sama kër la. Ah. Euh, man fi laay mm-hmm. xaw ma fi lu bari. Mm-hmm. Mm-hmm. donc mais xam nga journaliste dafa transversal. tey xaw ma ne woon sax dinaa ñëw ñuy waxtaan ci. drame dama ko vivre comme ni ko ñëpp vivre. maa ngi woon Dakar mais dama ko vivre. dëgg la situation li ci xew lépp dara ma ci. dëgg la ak ci liggéey bi xam ne loolu ko doon def invitation bi. di nga xamante ni co-débatteur. moom la ñu mm-hmm. euh, li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi. Mm-hmm. donc di ñaanal li nga xam ni ñoo fi bawoo. Mm-hmm. Euh, yàlla xaaral leen àjjana. di ñaan yàlla tamit affaire bi leer. pour suñu football. suñu moo tax affaire bi war a leer. et que yàlla leer ngir suñu football jëm kanam. parce que ñun ci nekk ci ci la yëngu. tey jii la bu ñu sañoon Sénégal dem Coupe d'Afrique ñu nekk ci Coupe d'Afrique ba. Sénégal jël ko ñu àndaat ak bi ñëw fi nga xamante ne mooy Sénégal te nii ñuy doxalee suñu football loolu moo koy wéyal man loolu mooy sama conviction te loolu laa ñaan gërëm ci remerciement jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi yi li moo nekkoon édition spéciale bi ma si doon dalal Paul Wade ni nga xamante ni euh, supporter la Stade de Mbour euh, ki nga xam ne moom mooy Moustapha Sall nek journaliste euh, sportif Sud FM ñu andon ak yéen ah di len doon waxtaanal di leen li nga xam mom mo moo am ci fële nga xam mom mo amone Stade de Mbour ak US Ouakam Dram bi di len jox dig dajé benen édition spéciale di gërëm bu baax ba équipe technique bi ma àndaloon ak ñepp ñoo xamante ni ñu ngi doon japp ci émission bi jërë ngeen jëf di len jox dig dajé benen yoon merci.